mais ñu ñëw lu tollu 3000 signal la nga am fa benn voix wala ñaar. loolu koy nax sa bopp. politiciens yi dañoo war a xam ne léegi nit ñi dofuñu dañoo sàngu rek waaye nelawuñu. xam nañ liy xew. li yëpp wane na ko. ayca ñu yegg ci kaw bi gannaaw ba ñu nuyoo ñëpp nag euh, jaajëfal leen ci ni ngeen di nekkee au rendez-vous saa bu waxtu wi jotee ndax nag matinal bu baax bi seen dose matinal bu dëgër bi. ñun ñoo leen koy jox. <laughs> te waxtu bi jot na temps amatul. ndax fa ñu jëm a tax. fa ñu jëm a tax. ay ca ah, suba yi. ak ngalaxu suba gi. àjjuma yi wala dimanche. <laughs> lu tribune wax nga ni. tribune yéen a dafa ñëw. ci fantasiro fasanteeg sikkim ga nga xam ne moo xewoon ca Pikine la ko war a du lenn lul ay ndaw yu fippu waat si tali bi taal benn Dakar dem dikk lu tax ñu fippu nag moo di seen naataangoo bii di Mouhamed Diop ndaw la comme ñoom foto baa nekk nii dañu ko faat. waaye la ko dal metti na. nee nañ takk na ci nee nañ takkader yi ñoo ko faat certificat de genre de mort mu mais moo nekk nii. le gars mënul woon échappé. da nga gis yaay ji ni mu wéeroo ci oto bi du yuuxu. mais moom lan lañ ko def. nee nañ dañ ko dóor selon ñoom li ñu wax. oui parce que amaguñu. ay birig nee nañ birig yéex yëpp ci biir xamuñu nag. birig lu mu def. xamuñu mais en tout cas coow li bari na ci lool faatu na. ñoom ndaw ñi doon fippu ak ay mbokkam nee nañu takk der yee ko faat ñoom ñoo ko wax ñu mer daal di taal benn bus Dakar dem dikk gàllankoor dem beex dikk bi ci banlieue bi en tout cas loolu ci boppam waa Dakar dem dikk ñoo jël décision bi seen bus yi ngir ñu mën koo aar dem beex dikk bi ci banlieue bi dañu koy téyendi ndax ku mer seen kaw lay dal taal bus Dakar dem dikk yi nga xam ne ñu ñëpp ñoo ko moom certificat de genre de mort baa ngi li mu référé moo di euh, polytraumatisme et des complications métaboliques yéenekaay bi foofu la dikk en tout cas ñii buñ nee ñoom reyuñu ñoom takkadeer yi mm-hmm. askan wa nee na leen yéen a rey ku rey reyu leen Mouhamed Diop moom dee na. mais il me semble que c'était le jour des élections. de dimanche la ah la. si jour dimanche bi. la affaire bi dimanche la qu'est-ce qui passé peut-être loolu nañ xamul. loolu ñu war ko lijjanti. oui tës dinañ lijjanti loolu. après tës. ñu lijjanti loolu. ay ay inspecteur dérigueur. ay dérig ñoo fa nekk. waaw ay colombo ay colombo ñoo fa ne. ay ci tribune yéen kaay dafa ñëw ba tey si Bassirou Diomaye Diakha fay cinquième président fii ci réewum Sénégal daanaka nag nee nañ ko attention à une gouvernance de partage du gâteau ndax na gis nañ ne ku fi yéeg la ngay nuyoo ax na ngay dëkkuwaale day wuute boo ñëw da nga naa man su may gérer dama koy def si tëddee ñaaxaanaay transparence daanaka xeex guerre réew mi kenn du ko séddoo paacoo waaye boo doxalee tuuti ñu gis kon contraire ba. mais xam nga la mooy indi mhm. xam nga la mooy indi mooy lan. le consensus tue la rupture. Mhm. Ah. expliqué. Ah. Ah, le consensus tue la rupture. mu teg ci table bi. très léegi maintenant loolu moom mooy indi tey jii nii. Mhm. boo nekkee ci logique ne diw daf ma jàppale. il faut ma sédd ko wala ba ma demee ca fongale mi moom moo ma fa dalal mhm. génn siège ya financé yëf ya ak yooyu ba ma paree wax fa la ma fay wax ak lépp mhm. amaana na sax moo ma dolli carburant mais loolu moom mooy problème bi après di nga am kersa ne ko moo ma ak beneen bi xam nga moom mooy ban moo di beneen bi moom mooy nekk ci logique wu wéy naa gën a dooleel sama parti oh, oh. c'est que moom moom démissionné na ci parti moom démissionné na ci parti loolu moom rek la ne benn point entre démission ak les actes bokkul. mais teewul loolu ci ay actes. oui ci ay actes sax nga koy jugé bien sûr. c'est vrai mais comme démissionné dañ koy nangul loolu. non mais loolu dama ne ci ay actes nga koy. ci ay actes nga koy jugé. parce que mun nga démissionné ci parti. c'est vrai ba pare actes ya ngay posé. contraire ak oh, justement. mais loolu ci acte nga koy xaar. mais ce qui est clair moom mooy bu ñu moytu loolu ay wéy damay yaatal sama parteek diw moo ma joxoon paas ak moo ma doon dimbali. moo ma carburant oui. mais mais ils ont appelé la ils ont euh, ils ont euh, ils prennent pour la rupture te gis nañu Ousmane Sonko ci seen sortie bu mujj. mu ne ku yaakaar ne gâteau la ku yaakaar boo ñu jàppalee boo fi ñëwee. am dara nax sa bopp. donc c'est clair net parce que diggante wax ji. wax ji ak jëf ji foofu lañ leen di. na dégg nañ seen i kàddu. Ah. daal na xel léegi ñu xool jëf ji. ndax dana méngoo kàddu yi am déet. Ah, li ci kanam raw li en tout cas. tribune yéen a kaay koy fàttali nii réewum Sénégal du gato ba képp cotisé woon rek war a man a njàcc maanaam képp ku cotisé woon di xaar sa part si gâteau bi. xibir yéen a kaay ko moytul loolu. cotise pas njàcc pas attention en politique tout acte compose c'est pour en tirer des moo ñu lor ba que oui oui parti mooy indi loolu que ku toog it. da ngay a defar sa toogaay ba pare. bañ kenn la bien sûr. parce que ñoom ñëpp participer nañu. baat nañu campagne dem nañ ci terrain bi jël nañ seen xaalis def si. rupture la ñu woote. ñoom rupture la ñu woote. Ah, waa ñoo ngi toog di xaar rupture c'est le nañ ko jëfe nee na ko am na ci ay retraités yoo xam ne nii dañoo muyee la mayo nañ ko jëfe ci terrain bi. Ah. battre campagne. Euh, ñoo xam ne ay troisième âge lañu boo koy seet. waa te jii ñooñu kon dañ leen di jox kaalax kurus setalax ah. ak si ak jox leen ne leen dem leen toog. dee leen ñu ñaanal. <laughs> am ñoom it dafa am fu ñu leen di yóbbu casé leen fa. <laughs> maison de retraite. waaw ay man na nekk nag. mais maison de retraite amul Sénégal. je sais que Ousmane Sonko moom. Ah. xam naa ne. gérer wut yenn yooyu noonu. Eh, mais xam nga nguur dafa grave oui après xam nga nguur dafa am réalité après day am ñoo xamante ne nii dañ lay infiltrer dugal la ci ay mbir yoo xam ne après doo la nga waxoon lépp dañ lay wër doom nga génn mais ci euh, homme politique boo xamante nii da ngay waroo ak sa kàddu non c'est clair sa diggante ak ñoom ils ont montré que vraiment ils se combattent pour ça ñoom xam nañu loolu ñoo la ko gën a xam de li leen fi li li leen fi fal li leen fi teg loolu la ñoom dinañ ko may. non c'est déjà il y ah. la position d'opposant. posture d'opposant. la mm. maintenant ils auront des opposants. Voilà. déjà là c'est quelque chose de nouveau il faut qu'ils acceptent d'avoir des opposants. comment déjà ils vont se comporter par rapport à. à ça bilan immatériel. accepter les contraintes. les contraintes les, les, les, des contraintes Vous savez, le pouvoir, c'est-à-dire il y a la pratique du pouvoir. Oui. Et ils devront tout le temps s'expliquer. Ah oui, donc ils, ils seront tout le temps. Donc il y a, quelque chose de nouveau. Je n'ai pas dit qu'ils ne vont pas mm-hmm. quand on voit, d'avoir démissionné, c'est bon. C'est un acte à saluer. pied du mur qu'on reconnaît un bon maçon. Très bien. Présidentiel bout dimanche. Mm-hmm. Bi wees. Bassirou résultat tendance yi daanaka nag ñu ngi koy commencé confirmer la victoire du président Bassirou confirmée avec 54 virgule 28 pour cent des suffrages laaj ma kan moo jël troisième Aliou Mamadou Dia bu pur sur ah. dur non pur moom warul la surprendre ñoom ils ont un électorat fixe waaw ba pare ñoom c'est le vote religieux quinze candidats yi des nag am ñu sax un pour cent <laughs> ñoom moom zéro yi dañ ko doon séddoo xaw ma nag nu mu demee noonu parce que am na si ñoo xam ne nii tey jii bu ñu demee bay am ay. ñuy am problème mu am 1 pour cent. am na ñoo xam ne dans une autre lecture dañoo percer. waaw non am na si ñoo xam ne tey jii bu ñu demee ba am problème mu am. 1 pour cent c'est parce que y a problème laay wax. zéro virgule tamit. am na si ñoo xam ne le fait que ñu bokk rek ñu valider leen. victoire et puis nga jógee 20 pour cent Idrissa Seck avait 20 pour cent. deuxième la présidentielle. ba pare ñëw. nga am problème mu pour cent. les revers de la transhumance. Macky demande à ses de préparer les dossiers de passation de pouvoir. waaw am na si dossiers yoo xam ne nag. boo leen koy joxe il faut ñu lijjanti ko. waaw non moom kay nan la tuddee. opération goxi. loolu <laughs> foofu rek laay xaar ya ca euh, AIBD. <laughs> kooku dañ fond force Covid 19 bi. fond force Covid 19 bi. ah ok scanner ya waaw mais ay scanner yoo xam te ni nit ñu ko gàddu yóbbu. seeyul. di ñu wax fu mu dugg de. kan ko war a wax. ah, ah a wax. mais dossier yi il faut ñu lijjanti ko. doo fee de fayuto mais demande sociale am na ci ay ministres yoo xam ne bu ñu tëddee nelaw seen yoon nekku si nañ leen ah. ca kàccet liggéey nañu liggéey bu rafet man daal bàyyi naa ministre bi woo xamante ni chauffeur am force covid 19 defal ko. Euh, euh, yor sa comptable. yor sa carte ba neexee rëdd. di dem di retirer presque cent millions par jour. cinquante cinq retraités mais nañu lijjanti loolu. ministre boobu daal vraiment. le témoin nee na dernier conseil des ministre tàggatoo bi kon démb la woon ak na président Macky Sall ak ay ministre am nee na waajal leen lép nag lu ay dossier teg ci taabu ji bu dara manqué ba noppi nañu waajal joxante lenge gi dossier ministre bi moom waru ko jox noonu il faut <laughs> laas yéene kaay nee na les sept <laughs> ñu ngay accélérer la cadence fu mu nekk nii nag ña nga ca liggéey ba pur et donc du top au flop gis nga mi ngi ni mais Bambaye pur nag terewul am nag moo jël troisième mais dañu la rechuté. mais Bambaye par rapport à résultat yi beef nga ne. est-ce que xam nga dara. ah xool boo ci salle d'attente direct DG yi. y a que des entrepreneurs là-bas. wala salle d'attente ou d'âge. yàlla baax na salle d'attente mais d'âge y' a que des attentes. <laughs> Eh les sept sages doivent faire baax na yàlla bëri na. situation macroéconomique sur le quotidien perspective pour le chef de l'opposition kan mooy chef de l'opposition am di jàpp ne kon Amadou Ba moo deuxième mooy chef de l'opposition am ay analyse politique yu wax ne chef de l'opposition da nga nekk chef de parti kon nag chef de l'opposition bi président Macky Sall la war a nekk. Macky ma dem moom talul opposé wu lu mu ci manti doon Amadou Ba ah Macky nekk fi eh, opposition Karim à la Karim Meïssa Wade moom soxlawuñu ko. ni nekk ba léegi secrétaire général national bu PDS. ko toog di envoyé ay message moom soxlawuñu ko. ko ah kuy ëppi problème ci nguur gi mooy waa ji. Amadou Ba maa te toogal seetaan. li ci kanam raw comme yaa ko wax. Amadou Mame Diop vacances du pouvoir oublié daanaka nag yéen a kaay bi di bés bi le jour dikk na ci l' observateur avenir politique bi Amadou Ba une voix dans les ténèbres da ngay toog APR wala nga quitté. moom Amadou Ba en tout cas laaj bi daal dinay sampu euh, njabootu kak faatu foofee sa Pikine dikk nañu ci enquête yéen kaay daal di dikk si Diomaye Faye face à la vie chère l'emploi le logement à l'épreuve des urgences kii nga xam ne moo di Abdou Abdou Khader Sanogo nee na kat nag fu mu nekk nii da nga da nga jiite askan woo xam ne jéggale ma mënatuñ ko ñoo ñoonu jooni jooni la ñuy xaar ni ay résultats ñun waa Tëngéej ñu ñoo ngi xaar ku ñu tëjal suñu canal bee. non mais oui mais tu sais que. yéen waa APR euh, waa waa waa Pastef. il doit savoir les problèmes il vient du bas peuple le président. Macky Sall du bas peuple. bon non ku ku nekk dafa taxaw jàmbat yaa ngi fii dama ne. Bassirou Diomaye Faye ba muy battre campagne wax na ko jafe-jafe yii dana ci saafara. oui il vient bu cher gi mi ngi nii wàllum xëy ci ndaw ñi mi ngi ci dëkkuwaay du logement. mi ngi ci ñu ngi koy xaar wàllum suuf moo waxoon ne bu fi toogee waarum coowal suuf jeex. gis nga la xew fee nu mu tudd. lotissement bay bi lii xew fee li nu mu tudd waa QVS yi nu mu tudd Kër Moussa. waaw Kër Moussa. waaw ñu ngi ñoom ñoom it. ñoom maraîchers ñi nga yëngal promoteur dugg na la jël seen i suuf ñu ne mukk du si daal mbayum dër la ñuy yëngu moom mii jomaay baykat la. moo waxoon ne bu toogee coowal suuf jeex. nee nañ wax ci lotissement. bay di sëy na nga ci wax. parce que dafa war a jeex. dafa war a leer nga dem tënkee ñun suñu canal baa ngi ne. waaw ñu bëgg ko tëj Assane Diop wax leen ci. que ministre bi ministre bi. ah les attentes sont énormes. napp gi licence de pêche yi. waaw yaa waxoon ne boo leen toogee da ngeen di xoolaat contrat yi xoolaat leen ko. njàng mi. le rappel boo duggee université boo fa génnee nga génnee ko am xëy. au croyant ñu ngi ci. Bassirou Diomaye Faye mi ngi nii ci réegu neex gi. aywa 54,28 pour cent. guddi moom saanu bëccëg. suukaru guddi moom saanu bëccëg ma la koy fàttali. mais ma bay il est huit heures passées de une minute. on ne devient pas président par hasard je pense que Bassirou Diomaye Faye est préparé à la tâche Mouhamadou Makhtar Cissé moo ko